dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal naa ñu lu jëm ci xeex woppi coronavirus ak mesure yi nga xam ne njiitu réew mi di président Macky Sall jëloon na ko ba mu neex ko mu daal di say deltu ginnaaw boobee am na ñu bëri ñoo xam ne maanaam ngàññoon nañ ko yéenekaay groupe promo consulting gi dafa xëy di wax ne est-ce que Macky Sall maanaam nekkul ci dëgg ndax ay expert ñoo xam ne seen xel màcc na jëm ci wàll wi la ñu xam ne mooy Macky Sall bu deltu doon ginnaaw ci mbir mi nag boobee caaf mën a xëm ndax askanu Sénégal ñu ëpp si ñoom maanaam dañoo demul ba maara day taal yi maanaam ñenn ñi mën nañoo toog seen kër faatu fa ndaxu xiif ndaxu ñàkk ñenn ñi soo muy tuule maanaam dañuy jóg ko defante ko ak moom maanaam révolté wu te ñaar yi amul benn boo xam ne maanaam baax na ci réew mi te boobaa Macky Sall mën naa dem ba duutul mën a fayati li nga xam ne maanaam mooy payoor yi nee ma salaire yi yéen a kaay gii di li Populi mu ñu xamal naa lu am ba des dàll mooy nag jàngoroy coronavirus ma ngi gën a wéy di law ci réewum Sénégal ndax lu toll si ñaari fànn gis nañu lu toll si ñaari téeméer ci ay nit amee nañu doomu jàngoro ji am na ñaar médias yi ñu nemmee ko ci réew mi yéen kaay gii di libération xëy di ko dëggal nee na benn fan am na ñetti nit ñoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan waaye nag woppi coronavirus ji gis nañ ne maanaam région de Dakar fii la mbir mi ëppee ndax lu toll si ñaari junni ci ay nit maanaam wala lu ko jege am na ñu doomu jàngoro ji yéen gi mu ñu xamal lan ñu ca diwaanu Touba la fa xew nag lu doy waar la am na ñaari nit ñoo xamante ni ñooñu dañu leen a xool na leen am ngeen woppi coronavirus ji maanaam ñu dugal leen ci centre bi ñuy fajee ñi nga xam ne ñoo amee wopp ji di leen faj waaye nag ba leen fa bàyyee dañoo jekk-jekk na des ñu leen di woo téléphone ba léegi ne mënuñu leen a gis yéen a kaay gii di Walfadjri mu ñu xamal na benn coow boo xamante ni commencé naa juddu ndax bëri na ñoo xamante ni bu ñu leen waxee ne leen woppi coronavirus moo rey seenu njaboota wala seeni mbokk lu mu ci mën di doon ñenn ñi dañu koy wedd ba tëdd si naaj wi te loolee maanaam lu ñu war a jubbanti la yéen a kaay gi mu ñu xamal na ñu en tout cas Ndakaaru ak ñi nga xam ne ñoo fi amee woppi coronavirus gis nañ ne sant de traitement yi jamono ji nag dafa fees dell suma assistance ñoom nag mere nañu Abdoulaye Diouf Sarr loola ndax nag li nga xamante ni moom la ñuy gis daal nee nañu ak parparloo dafa am ci ni nga xam ne moom la ñuy xeexee woppi coronavirus ak ni nga xam ne moom lañ koy doxalee waa suma assistance nee nañ lu ëpp ci liggéey bi maanaam privé bi ñoo koy def te privé bi amul kenn koo xam ne am nga sañ-sañ def ab test te loolee rafetul jaaduwul yéen a kaay gi du l'observateur mu ñu xamal nañu professeur Moussa Seydi ak waa ministère de la santé ba léegi ni seen diggante neexul ndax professeur Moussa Seydi dafa mel ni gars yi dañu koo bëgg a boddi kàddu yi mu yëkkati woon sa sigi coro wax ne fajukaay yi moo fi fekk maanaam baaxul loole nag dafa mel ni mooy ñurum ñurumi xolub Abdoulaye Diouf Sarr ba léegi moo tax professeur musa Seydi ak waa ministère de la santé dafa mel ni mënatuñoo jaaroo ab taal yéen a kaay gi du l'observateur moo xëy di ñu ko xibaar yéen kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu Mansour Faye mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum jënd dundu geeg wàllum séddale gi ay mbiram jamono ji nag soo muytulee dana gën a doy waar gën a gëllu góose ndax àllarba ji nga xam ne moom la ñu génn dafa waxoon ne dafay def ab conférence presse askanu Sénégal ñu bëri na ko ubbi seeni nopp di ko déglu ci ay leeral ak yéexaange gi nga xamante ni am na ci wàllum séddale ak dund gi Mansour Faye dafa fomm li nga xamante ni mooy conférence de presse bi ba léegi ne andi wu ci ay leeral yéen kaay gi nee na lii nag li nga xamante ni moom lay jur maanaam gën a xalaatloo Sénégal yi ci yorinu Mansour Faye ndax nag gisoon nañ marche yi nga xamante ni joxe woon nañ ko jëm ci wàllum ceeb beeg wàllum transport am na ñoo xam ne d'accorduñ ci woon ñenn ñi jàpp ne dafa am ay léexóor te leneen loo xam ne Mansour Faye war na koo lijjanti mooy ana lan moo waral yeexaay gi am ci wàllu séddale dund gi ndax Sénégal yi jamono ji ñu ëpp si ñoom dañu ko soxla ndax sonn nañ ba maara day Dakar Times xëy yóbbu ñu diwaanu Arabie Saoudite mu ñu xamal ñu Mohammed Ban Salman daat nay tere lépp loo xam ne jëm na ci jullik mbooloo foofee nga xam ne mooy Arabie Saoudite Makka ak Medina ak Kaaba ga lépp dañ ko tëj ndax Arabie Saoudite lu toll si ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay nit woppi coronavirus nag daat na leen di faat jàngoro ja wéy di fa lawa yéen kaay gi de la turbine mu ñu xamal ñu koriteeg ren gi maanaam ko fàttee ka jafe-jafe ni moom la làmboola yéen kaay gi di dëkk Mbàkke di jàppale Macky Sall waaye kan moo koy protesté loole la journal bi xëy di laaj ndax dafa am benn moodu moodu boo xam ne moom la yore lu toll ci fukk ci ay millions maanaam bañ ko fay ndax da ko waxoon na ko say conteneur mën naa la ko génne la génnewul conteneur yi joxu ko xaalisam waa ji dem section de recherche maanaam daal di koy porte plainte ñu convoqué ko waaye nag ba léegi nii mbir ma mujjul fenn mu jël ko yóbbu ko dikk waa dikk di woo Omar Ndiaye Angoloma ba sonn maanaam mu lànk kandaare bañ a wuy ji waa dikk loole ana fan la ko teg moom la journal bi xëy di laaj yéen a kaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal ñu Babacar bu Sedima mi nga xam ne moo jiite maanaam mbootaay gi ëmb investisseurs yu Sénégal daan nay xëy bind ab communiqué di jéggalu askanu Sénégal di jéggalu membre yi nga xam ne ñoo bokk ca boobale kuréel moom Babacar Ngom la mu xamle mooy nag la ñu jàppale woon akili loole nag maanaam erreur mënu ko passé waaye nag ñoo ngi siy jéggalu ak ñàkk xam la yéen a kaay las mu ñu xamal ñu njiitu mi di président Macky Sall jamono ji daan nay soxla mi nga xamante ni ñaari fan ci weeru juin maanaam lañ koy dooraat mobilisation nationale na si ñëpp jàpp yéen i kaay gi du sunu làmb mu ñu xamal lan ñu coow li dox diggante mbër mii di Gris Bordeaux ak Alioune Sarr bu CNG ba léegi nii njaw ma ngay wéy di desu xambin Pape Alioune Mbaye journaliste reporter la nekk wal Walf TV la mu xamle nee na moom su nekkoon ci place Aliou Sarr maanaam dafay démissionné yéen i kaay gi di Rewmi Quotidien ñu daal di koy jeexale ak moom ci lu jëm ci Kalidou Koulibaly mi nga xam ne waa Paris Saint-Germain ñoom dañu ko bëggoon lenn lu nekk dañ nañ ko si waaye Kalidou Koulibaly ci boppam moo cher moo tax jamono ji club français boobee nee na na ko dem xooli keneen